Sénéinfo International. chers internautes de Sénéinfo International Sénéinfo.net euh, daleen ak jàmm si lu gën a fës si xibaar yi tey euh, euh, mercredi 3 janvier 2024 voilà dañ koy commencer rek par Vox Populi moom nee Euh, l'inquiétude de la FENAPES et de l'UNAPES euh, au sujet de l'environnement des écoles. Mon euh, élève cigarette électronique et chicha panique des parents. Donc, je vous appelle pour nous de ce journal pour dans nos écoles, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser nos enfants au tabagisme. Les chefs d'établissements scolaires et universitaires invité à plus de vigilance donc li nga xamante ne mooy chia bi xale yi ñu ngi koy jël bu baax a baax ci école yi loolu moo waral euh, FINAPES euh, FINAPES ak UNAPES euh, ñëw di décrire situation boobu noonu loolu la journal Vox Populi xëy def tey dans sa une ñu des rek peut-être ci journal bi mu ne Macky Sall accepte un job après. la présidence. Donc, euh, il a accepté de prendre la responsabilité d'envoyé spécial Euh, de 4P et de présider euh, ce comité de suivi a relevé Macron donc yi nga xam ne ma Sall moom am na liggéey bu bees donc boo xoolee sax la plupart des journaux tey loolu la ñu xëy def tey à sa une donc euh, ñu des rek si journal bi mu ne près de 200 enfants retirés et logés au centre Guindi donc xale yi nga xam ne ay dañuy def kii ay les en sont les enfants de la rue ñuy def ñu yelwaan ak ñeneen. donc lu toll si euh, ñaari téeméeru xale si xale yooyu jël nañ leen génne leen si li nga xamante ne moom mooy mbedd bi dugal leen fële nga xamante ne moom mooy centre Guinté journal bi xëy tey euh, fasal ñu ko ñu des rek si candidature Ousmane Sonko mu ne des sommités de la démocratie africaine demandent à Macky euh, d'obéir à la loi donc ñu ngi ñaax Macky pour mu vraiment mu xool loi bi si kaw Ousmane Sonko loolu la journal bi xëy def tey na journal bi ba le quotidien moom dafa ñëw rek ci euh, Macky mu ne Macron recrute euh, Macky Sall donc comme envoyé spécial du 4P loolu la journal bi xëy euh, xamle ñu ne limogeage des préfets et sous-préfets supposés apparentés au maire de Linguère donc Aly Ngouille Ndiaye accuse donc loolu la journal bi xëy aussi xamle. du euh, deslek si euh, journal bi mu ne euh, phase finale de la CAN qualifié qualifié mondial huis clos contre le Sénégal Aliou Cissé charge la CAF et la FIFA donc journal bi tey daal loolu da ñëw xëy tey def ko fësal ko tey dans sa une le soleil moom dafa ñëw rek si Macky Sall comme luñ ko leen ko waxee sànq moom moo occupé actualité bi mu ne envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète ce qui attend Macky le président entre autres sa mission boostée par son leadership et son intelligence les financements pour la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté donc li nga xamante ne moom mooy mission Macky Sall si euh, postam bu bees boobu nga xamante ne Macron jox na ko ko loolu la journal Le Soleil xëy fësal tey euh, sa une Libération moom dafa ñëw rek si Barça wala Barzak mu ne des migrants des migrants de justesse à Bargny donc ñi nga xamante ne euh, ñuy dem fële la euh, def émigration euh, irrégulière benn jàpp dañ ay gaal boo xamante ne dañ leen jàpp vraiment de justesse ñu débarqué leen mu ne la pirogue qui avait quitté la même plage le 3 novembre est revenue sur la terre ferme après avoir frôlé enchevêtrement en mer donc dem nañ ba ci digg bi waaye bu ñu ñëwee ba ci digg géej bi après si lañu retourné parce que naa condition yi ñi seeti pas ñu daal di ñëwaat euh, fi nga xamante moom mooy euh, Bargny ñu ne appel la liberté provisoire accordé par le tribunal ñu ne le parquet maintient Diop Taïf en prison Pape Abdoulaye Touré est dans le coma il n'est toujours pas évacué alerte le mouvement en Sénégal notre priorité donc le journal et bi xëy xamle bu journal bi euh, ñëw si Aly Ngouille Ndiaye mu ne Aly Ngouille Ndiaye sur le dernier mouvement dans l'administration territoriale mu ne des agents euh, à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi ont été éjectés euh, de leur poste donc Aly Ngouille Ndiaye loolu la xamle aussi si journal Libération. enquête moom dafa ñëw rek si ah, mu ne stratégie de communication bi nga xamante ne Idrissa Seck mu mooy l'art du silence nga boobu noonu boobu tey kenn déggagu ko. te mu ne ngeen ne tekk tekkaaral donc journal bi loolu la ñëw xëy xamle tey dans sa une mu ne encore euh, diffusion de fausses nouvelles ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang journal bi aussi ñëwaat na ci mu ne Mame Mbaye Niang porte plainte contre les tiktokers et les youtubeurs ki nga xam ne euh, dañ ko accusé woon ne de moom dafa euh, voilà jotee ak ñaari ñaari ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar ñëpp mu ëmbal leen. donc euh, loolu lañ ko doon accusé bu nekk donc euh, suite à cela Mame Mame Mbaye Niang dafa jël dogal pour porter ñooñu plainte ñoo nga xamante ne ñoom ñoo wax euh, boobu boobu information donc ñu des rek si ki nga xamante ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye si affaire bi nga xamante ne moom mooy problème bi ko opposé ak ñeneen yi kii bi ak opposant yi mu ne Aly Ngouille Ndiaye il est de la vie d'opposant donc li nga xamante ne kii mooy problème préfet yi nga xamante ne parce que ñoom dañoo jege ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye donc euh, boobu noonu loolu la journal bi ñoo ko fësal te euh, dans sa une le quotidien moom dafa ñëw rek si euh, li nga xam ne moom moom maladie dans le secteur mu ne cas négligé seuls 10 pour cent des emplois des employés sont en charge donc mu fësal li nga xamante ne mooy nataalu image kii euh, euh, Sénico donc mooy entreprise agroalimentaire boobu donc euh, mu ñëw si la prise en charge des employés de cette entreprise mais daal voilà ñooñu daal boo xoolee daal si cent yi dix pour cent rek la ñu jël société bi jël en charge journal bi ñëw di ñu ko xamal ba tey rek ci journal bi mu ne entre Dakhla et Nouadhibou moom foofu si Mauritanie mais plus de huit cent Sénégalais rapatriés voilà lutte contre Eumeu Sène Tapha Tine d'une mise au point. donc loolu la journal bi ñëw euh, euh, xamal euh, du tey dans sa une journal bi ba tey rek moom ñëw na si journée d' intégration la fa nga xam ne moom mooy Cap-Vert les migrants donc journal la ñëw fësal tey dans sa une. ñu jeexalee ko si moom dafa ñëwaat si coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Euh, le du 10 du 10 au 2 décembre ah incha allah mu ne les lions débutent aujourd'hui à 12h euh, GMT mu ne par l'Argentine donc loolu la journal bi tey xëy xamle euh, dans sa une. ñu des si journal bi mu ñëwaat rek si li nga xamante ni moom mooy mondial 2026 éliminatoire mooy liste des 27 joueurs pas de grand changement Formose revient Aliou Cissé. loolu daal le journal bi xëy fasal mu ne la magasiner euh, six points euh, dans dans ces deux euh, matchs donc loolu la journal bi ñëw xam te xamle à saa yi mooy journal en relief. chers internautes de Seneinfo International Seneinfo point net donc lii la ngeen indiloon si lu gën si xibaar yi tey mercredi 3 janvier 2024 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te di leen tàggat kenn International.